am problème mu formation wala boog kenn du ci jàng ba pare am info dem di fayiwaat pour ñu former la ci informatique ñu xam ne tey digital jamono bi dafa changé li tuute informatique ñu ne loolu vraiment dañ ko bëgg a jëmmal ci département bi te département bi bu ñu ko dee wax tey Malika mooy chef de lieu département euh, ñu ànd seeg administration bi fi nekk ak kilifa diine yi fi nekk tey ñu gunge ñu ci pour ñu samp centre bi tey bi nga xam ne mën na jël deux cent cinquante jeunes par mois parce que formation bi dañu jël ay professeurs yoo xam ne ay professionnels lañ ñu former leen kuñ ci former ba pare dañ lay jox diplôme boo xam ne état daf ko reconnaître mais aussi ñu for ñu financé woon femmes yi financement boo xam ne dafa des ci seen loxo bi ñu waxtaanee ak techniciens yi dañ ne ñu financement yi jigéen ñi amuñu formation bu ñu mën a def for parce que jigéen boo ko joxee xaalis bu doomam jooyee mu jox ko ko kon ñu former leen ci 700 femmes yu nga xam ne formé nañ leen ñu ngi seeni i ñu wutal leen woon atelier ci kaw boo xam ne li ñu li leen formé financement bi ñu leen di jox dañuy ñëw fii di ko fi réaliser atelier boobu moo nekk ci kaw. lii nag du pour benn bis wala pour ñaari bis loo xam ne dañ koy def parce que euh, état mënul créer emploi mais dafay dimbali ay secteur privé pour ñu créer emploi état boobu tey moo ñu accompagner. maanaam parce que booy bëgg tey autorisation boo bu la sous préfet bañalee wala préfet doo ko am soo bëggoon def tey yenn yi ne dama koy def sous sous préfet bañee doo am ñu ànd ceeg nag ki nga xam ni tey vraiment daf ñu yàgg a ñaax ci def lu baax daf ñu yàgg a ñaax ci nañ dimbali ndaw ñi muy ma Mandione vraiment ñu ñëw tey jëmmal bisbit bi ubbi centre bi pour di ko def di wax ni xale yi département bi yëpp ku ci amatul formation ci yow la ku ci ku ci ne amuma informatique mënuma ko ci yow la te formation professionnelle bi tamit aussi dañ ciy jublu defar ko ndaw ñi banga xam ne tey ndaw ñi ku nekk partenaires yi ñu am dañu bëgg bu ko defalee ba pare ñoom ñoo ñu wax nañu euh, ñoom bëgg nañ yóbbu ay ndaw Europe mais ndaw yi ñu bëgg a yóbbu day fekk ñu am métier. léegi ñoom dañu part dañu signé pacte ak ñoom contrat boo xam protocole boo xam ne dañ ko signé ak ñoom pour ñu formé ndaw yi ba pare ñu tànn ci ñaar wala ñett di leen yóbbu pour wutal leen ay métiers ay liggéey yoo xam ne dañ ko mën a liggéey Europe mais mënuñu yóbbu ndaw loo xam ne mënuñu liggéey loolu daal moo doon euh, tey njëg mi non mënuñu ko xayma lépp parce que financement femme yi ñu njëkkoon a def mi ngi tolloon ci 14 millions loolu dafa yàqu woon parce que am nañu fay am nañu fay muy kii mais financement bii ñu bëgg def dañ ko def ko ci loo xam ne ñu ngi xayma première euh, kii parce que mënuñu former 700 femmes mënuñu financer 700 femmes yëpp mais dañuy financer par 50 50 50 yi ñuy former am nañ diplôme dañ leen di financer ñoom ñu dem mais bu ñu demee duñu leen seetaan dañ leen di contrôler parce que li ñu leen former ba ñu yor diplôme bi ku nekk matière bi nga kii moom ngay réaliser def atelier bi ci ci ci ci biir. non formation yi xam nga kii danaan man céréale laa kii ne man ordre mbay laa bëgg def ci formation yooyu defe naa dugg ngeen ci centre bi sànq gis ngeen dix formation la gis ngeen ko bon formation yi dix la ku nekk yow yaay choisir ñi nga ci bëgg professeur yaa ngi fi pour former leen. loo loolu ndànk-ndànk la parce que adduna loo gis mënuñu tëb defandoo lépp mais lii defe naa mi ngi doog a am ci département bi ñu koy def ànd ak ceeg ay partenaires te loolu dañu bëgg mu law ci département bi yëpp. tey fii ñu ko def ci Malika dafa nekk centre bi defuñu ko pour Malika mais dañ ko def pour département bi département bi nag tey dafa nekk Malika mooy chef de lieu département moo tax fii ñu def dafa nekk ci axe bi. waaw dañu am mbégte nag lool di taxaw fii di wax ci li nga xam ni que ni mënu fi dajale tey ci ngoon muy loo xam ni que ni lu am solo la pour ci njaboot gi lu am solo la ci gox bi nga xam te ni que ni moom la ñu dëkk. ci lu am solo aussi ci dëkk bi nga xam te ni que ni dëkku diine la ñu ñëw fii nekk ci sunu wetu xarit sunu am di jàmm sunu wëllëre muy Ndiogou Sow mi nga xam te ni yàlla moom la dogal mu initier sa projet la kon Ndiogou dañu koy gërëm di ko sant di ko wax ni que ni toute la population de Kër Massar ñu ngi koy ameel njukkal. Euh, particulièrement nag population bu Malika bi nga xam te ni que ni fii la outil bi nekk. outil bi nag xam ngeen ni que ni dafay contribuer au développement euh, de cette jeunesse la nga xam te ni que ni bari na ci ñoo xam te ni que ni amuñu métier. et Ndiogou nag bi mu xalaatee loolu mu daal di ñëw del investir ci euh, centre bi nga xam ne dafay former xale yi en informatique et suñu génnee am possibilité wala chance am liggéey loolu defe naa ni que ni ñëpp war nañ ko ci jàppale kon damay wax ni que nii même les autorités war nañ ci jàpp gis ngeen le sous ngi ni ci suma wet xam naa dina jottali message bi kilifa réew mi ñu jàppale ñu mel ni que ni Ndiogou Sow mi nga xam te ni que ni dafay œuvrer pour lu développement de ce pays et particulièrement au niveau du département de Kër Massar donc ak ki nga xam ne que nii fii la te léppam nekk kon loolu moo taxoon ñu ñëw toog ci wetam jàppale ko. ñaanal ko pour que li nga xam te ni que def na ko yàlla defal ko ci xéwal ba mu àgg fu war a àgg. ñu ñëw ci inauguration bi inauguration fekk fii sëñ Mandione ak euh, vraiment acteurs yi nekk Malika ak département de Kër Massar yëpp ay acteurs politiques ay acteurs de développement mais aussi ay acteurs euh, du monde de l' entreprise bañu ñu fi fekk. alors sant bi nag visité neen ko mu nekk centre boo xam ne dafay former jigéen ñi surtout ak ndaw ñi. ñu mën a am xam-xam bu wér ci digital ci informatique pour que loolu mën leen a jëriñ bu ñuy amee financement moo xam ci état la jógee wala ci moom wala ñu mel ni ñoom ñu mën ko gérer bu baax loolu mooy njëriñu centre bi. ba tax na ni ma ko waxee léegi ñi ngi woo en tout cas jigéen ñi ak jeunes yi nga xamante ni ñi ngi ci département de Kër Massar wala ci commune de Malika pour ko ñu mën a ñëw. gis centre bi xool ko visiter ko mën a nag fexe ñoom ku ci nekk la nga soxla nga mën ko demander parce que am na ay modules yu bari yoo xamante ni présenté nañ ko fi am na ay professeurs yu am xam-xam yoo xamante ni wax na ni ñooy fa war a def formation yooyu noonu donc je pense que avantage la pour jeunes yi avantage la pour jigéen yi yu mën a ñëw jege ci centre bi